mbokki amateurs yi mbokki téléspectateur Equivox TV yi comme ni ngeen ko xamee rek ak Equivox TV ak Babacar du mën a ñàkk ak Yaggamar maa ngi leen di nuy di leen ziar di nuyu groupe Equivox TV yëpp la ko commencé ci kaw ba ci suuf muy góor di jigéen di leen ñaanal jàmm li ko waral nag jataay bi ak fi ma toog ku ne xam ne ki ma toogal defe naa ne léegi di ngeen ko gis muy koo xam ne lamb lu muy doon doon xale ci ay at marqué na ci emprentam ndax yaakaar naa PABC Events moom. ku ne xam na ko Sénégal képp kuy dund làmb léegi nag mu am date boo xam ne yàgg maar day waaj ñëw di le 3 avril di samedi bii nu jëm 4 million la yëkkati teg ko arène nationale ne li simple mbër yi kaay leen ku daan jël ku def loolu prince si soxo ñu fas yéene nag wax ak moom parce que nag ñun fii nga ñuy gis nii maar duñu xebal kenn bésam te per Max Mbargane da ko doon wax ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi te prince mi nag def na ci lool làmb lu war a ma tax nit dégg ko mic ko dégg ko micro laaj ko xalaatam et puis gunge ko ci bisam loolu la ñu fas yéene def ñun waa Equivox TV parce que nag prince toll na noonu ci làmb prince si soxo satul suñuy si satul suñuy lu si soxo borom kooraay lay bëgg di la Chéri Maama Kouyaté ak Kalusaay Ngom. waaw ak Ina Fall ak Maymuna Kouyaté. Uh-huh. yàlla na ko yàlla xare àjjana. mais maa lay nuyu Babacar. di kontaan si toog ak uh-huh. euh, di nuyu waa Equivox yëpp. di nuyu Seck. Mm-hmm. di nuyu Aline Barra. Uh-huh. ak seen euh, équipe bi yëpp caméraman yeeg ñëpp. di nuyu waa Sénégal. Euh, di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi. Mm-hmm. Hmm, di nuyu waa Kër Serigne Touba. di ko teg si loxo sëñ Muntaxa di ñaanal suma yaay soxna Baali Muntaxa yàlla guddal fanam may ko wér ah, di nuyu maam Ansu ñaa di nuyu waa Casamance yëpp di wax mbaa di mandinkool be kontaan ne baake kaba kolda kata karanta ba sumundu kanjalon ah, alaaji kajaali sooli ba xayra ba ba ibrahima ah, cerno amadou bari maa ngi nuyu Casamance gi yëpp waa kolda di nuyu sumay waajur suma yaay sum pap di nuyu sumay frère ku si mel ni Go Faye borom mouvement réaction parcelle sama xarit la bëgg doon maire parcelle doon jeune ah man xam nga jeunes yi dañ ma ñor trop voilà euh, di ko ñaanal parcelle yàlla na doon maire bi nu mu gën a gaawee waaw yàlla na élection yi gaa am mu doon maire parcel may wax parcelle dañ jàppale Go Faye ñu ngi nuyu Amadou suñu papa la suñu xaritu xarit la muy Modou donc ak ay rakkam sumay xarit lañ ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu mais Go yàlla doon meeru parcelle suñu mu gën a gaay mais maa ngi nuyu tam sama mag maam booy jaaw borom Kolda parce que lu mu fa def si weekend bi am na solo trop mobiliser na Kolda yëpp ñëpp takk seen masque Kolda yëpp jóg donc du ma def lu dul félicité ko ñaanal ko euh, mu gën a gëstu jeunesse bi jeunesse mooy avenir waaw moom day rakam la te loolu lu am la donc na ko dëggal ci jëf yi gën ñu taxaw gën ñu jàppale parce que loolu mooy ndamam sans Kolda la mooy félicité Pape Abdou Fall mi ko tuddee drapeau surtout ak Pape Mor ak Papa Sow le premier août waaw di ñaan yàlla ñu yàlla yóbbu ñu ci jàmm lépp lu mu si bëgg moom Pa abdu yàlla defal ko mais moom maam booy yàlla yokk si am na gën a jàpp làmb parce que ñu ngi ko koy jëyee Mox Matar Ba ñoom ñooy ñiy ànd ak président amuñu complex amuñu dara di ñëw si làmb parce que làmb culture la tubaab bi dafay wax euh, un nom dépouillé de sa culture perd son humanité philosophe bi ne le culturel est si présent en nom euh, qu'on peut plus faire la distinction entre ce qui culturel et ce qui naturel mooy nit ki dund na ba mënatuñu xam lii mooy culture wala nature soo ko duggee ci religion ci philosophie culture et religion dafay jaxasoo aada bu rafet day dem ba mel ni diine voilà donc ñoom fonk bi ñu fonk seen culture nañ ko gën a defaat dina xëcc ñeneen ñi parce que dégg nañ sax ministre justice bu doon wax ci làmb waaye rectifié wu na woo mbëri dañ koy rafetlu parce que grandeur la ndit nga juum nga nangu ne juum nga waaw mais ñu leçon la pour ñeneen ñi nga xam ne dañuy yàq làmb làmb di culture di sport nekk sport de chez nous man étudiant la dama jàng dem université nekk euh, fak droit jóge fa dem b euh, itacom jàng fa doon nekk BM am sama licence marketing euh, développement commerce développement personnel communication mais aw ma complexe tëgg làmb samay xarit yëpp ay wesh wesh lañ ñu ma jàngandool ñoom Abdoulaye Sare banquier ñooñu mënoon nañ dem liggéey si banque wala dara dem parce que am nañ diplôme bi ba léegi nii am naa samay kayit mi ngi fi te damay continuer jàng pareegu ma ba ñu may woo pour ma valider pour def valider sama master mais aw ma complexe tëgg làmb aw ma complexe sumeeku jàppante bëre sport la te sport de chez nous la nañ bàyyi complexe quoi waaw ah, nañ gëm suñu bopp gëm suñu culture voilà am na solo message bi am na solo Prince mais léegi su ma ñëwee ci Prince Sissoko balaa may ñëw ci le 3 PABC Events sañ ko gisoon mu nekkoon ci kaw daan tëgg ay journée yu doy waar Iba Mar di fees fu nekk di fees foo woote mu fees balaa 15 euh, euh, euh, heures jot mu fees dell la ñu dem ba benn moment gis nga pause lan la ñàkkoon doole la ñàkkoon xaalis la wala yow yaa taxawaloon sa bopp lu xewoon. xam nga PABC jeune la équipe jeune la. maa nekk ci kanam comprendre nga te man jeune la booy laa xale nag euh, si tu as peut-être cinquante ans à vivre amoo bay ñàkk karaw bu ñuul nga yor man bi may dugg ci làmb ñaaraat laa am ku lu ne wax nañ ko fi nga def lu baax ñi ne diw moo nekk ci ginnaawam Bougane moo nekk ci ginnaawam Aziz Ndiaye moo nekk ci ginnaawam Luc Nicolas moo nekk ci ginnaawam est-ce que jaayul dorog est-ce que kii waaw est-ce que nekkul ci organisation léegi mu taxaw ñu ne perte na daanu na mais àdduna innama yusri yusran la perte ñu dara ñu ngi fi tëgg neen ay làmb euh, yu neex yu neex sénégalais yi 2014 4 avril ñoo ko tëgg gisuñu ci benn membre bu nekk ci état walla kenn ku ñëw jàpp ci te jeune la bu doon def bu doon jéem mais foog nga perte dëkk suñ si nekkee dañuy jàppale jeunesse bi mais munoo nekk si dëkk paa yi rek la ñuy jàppale. Sénégal looloo fi am baar. looloo fi am di si côté boo laal paa yi rek la ñuy jàppale mais paa yi dund na seen àdduna nañ bàyyi xale yi tam tuuti. maanaam loolu soo message boobu kon état nga koy wax xanaa. mais état laa koy wax état président dañ koy félicité mi ngi liggéey mi ngi si yoonam ku dem ba wéy la xam nga ni bëgg na la. coronavirus man culture dama ko. waaw man ma sa moom a jaaxal da nga def woy wu neex presque. man sama deret la su Sunjulu mooy sama maam maa Kuyaate di sama maam Pape ma Baba Diouf Pape Diouf ancien président Marseille moom ak ki jur sama yaay ñoo bokk benn baay Alioune Badara Diouf Papa Demba Diouf moo leen jur génn na àdduna si période Covid ñu denc ko denc nu ku de génn àdduna si Covid. waaye loolu weesu na mais titre posthume yu ñuy dégg Pape Diouf su si jiituwul da see war a bokk parce que non seulement il a défendu la couleur noire il a défendu l'Afrique il a défendu le Sénégal da doon toog si table tubaab bi fëgg Marseille dañ koy rendre hommage bi ma ko seetee foofu taxi bi ma jël nanguwul ma fay waaw restaurant bi doo fay ndax Pape Diouf surtout Pape Diouf nga deretam nga ñu jox honoré la mais dëkk bi nga dëkk bugguma gëm si loolu nul n'est prophète chez soi may jaalewaat sama famille yëpp di leen massaw suma maam ñiraan Seck sama ndijaay Amadou Diouf euh, Papa Demba Diouf Mbay sama yaay maam booye ak Kati Diouf Marseille ak suñu rakkam bi nga xam ne bàjjen bàjjen la sama ñoom yaay ñu koy woy ñun ñëpp bàjjen Maguette maam Maguette maa ngi koy masoowaat ndax xam naa tey day mel ni tey la Pape Diouf génn àdduna si moom ndax féete woon na ko fu ne ñu koy ñaanal yàlla xare ko ajana mais état bi nañ ko rendre honneur yu mu mérité waaw su nu mu gën a gaawee. léegi ba tey am na beneen dese boo xam ne am na fi parce que dañ lay jiiñ Bougane di la jiiñ Aziz te dese boobu mooy dese wu coon Seck te bu ñu ko waxee dañu tudd Waly Seck te buñ nee Bougane nag Waly ku ne xam ne nit a goro la defe naa foofu tamit am nga loo war a mën a wax ci desawu coon sec wala sa sax digganteeg waali wa ba ci bugaan ak yooyu. xam nga tey soo nee waali frère la mbokk la moom it Sénégal ku fi baax bokk nañ sama maam ki jur sama yaay ñilaan sec euh, papam mi ngi tudd Mor Dior sec teel a génn àdduna mox ki jur coon sec Cheikh sec ñoo bokk benn baay si la sec. Hmm? kon waali deret lañ mais man dama gëm sa bopp bi buggaan di wax man moom laa gëm hmm. waali yaa xam naa li xew musuma taxaw di ko wax ak moom coon hmm. lépp lu ma doon signé waali coon laa koy signéel papa coon musuma tardeel si dara musuma dëgëralal dara xool bu rafet la ko yàlla may dëggoom moo tax peut-être ñeneen di wax leneen mais lu muy waxante yow dëgg lay doon man lépp lu mu Moussa waxante wax man damay gis dëgg bi si moom il est catégorique il te dit la vérité c' est un point c'est tiré ñu ko dul woon comprendre c' est parce que moom tey ji suy ànd yow moom day jàpp ni caméraman bii nga àndal ni mu la jàppee noonu la ko war a jàppee loolu dama ko koy seedeel parce que dafa am lu fi xewoon si dëkk bi mu woo ma ne ma lii ñii suñ ma jàppee woon comme seen kilifa gi lu ñu bind si man duñ ko bind parce que dañuy jàpp ni moom la parce que même bu doon dëgg la ñu bind ko garaaw mais du dëgg bu doon moom la dinañ jël soin vérifier donc loolu ma comprendre si kan mooy Lom Thione Seck mais tey duñ def lu dul ñaanal ko yàlla xare ko àjjana yàlla oyofal suuf si kawam bëgg bu mu bëggoon yonent bi yàlla yàlla na ko yonent bi teeru yaa ngi wax si moom te journée bii ma tëgg dama ko si rendre hommage Bougane sama frère la bi may commencé làmb dem naa si télé yëpp ñii di ma laaj ay ticket d'entrée ñii di ma ko dëgëralal man ma ne li ma gëm mooy ma monter sama combat def si xaalis 17 million la woon budget bi combat bi Moussa jum Ahmed Dem Thiat Dolf seen combat budget bi 17 million la woon si combat Ibamar loolu laa doon dugal Ibamar jën kay rax booy sëy bu ma leen tëgg ku nekk cinq millions laa la te combat yi si biir ba si suuf yëpp day baax promoteur euh, amateur la te lu may def damay bëgg mu baax Bougane fereer la bu ñëpp bañee moom dama ñëw mu signé man contrat exclusivité jàppee ma comme promoteur roi promoteur yi donc kooku du ma mun a doon lu dul kooku ku nangu promouvoir jeune la donc mënuma doon lu dul euh, collaborateur à collaboration à vie lay doon man ku ma ji teraanga teraanga googu rek laay dundax yow waaw te moom ñu ngi koy félicité di ko ñaanal li mu bëgg ci réew mi yàlla defal ko ko parce que bëgg na réew mi tey nu muy doxalee société am ak programme bi mu yor war na ko mun a may mu am ci dëkk bi comprends nga moo je suis de mais damay jékki-jékki gis nit koo xamante ni kii bokk nañ ay valeur te ànd ndax jeunesse ma ànd ndax moom jàppale ko néew ma damaa ànd ndax Bougane wala ànd ndax Macky Sall wala ànd nax kii mais képp ku bëgg réew bi bëgg naa la wallaay. am na solo léegi nag damay jëw ci le 3 euh, nga war a ubbi sa saison war ko ubbi le 3 di samedi bii nu jëm teg 3 millions arène nationale ñetti millions. presse loolu noo ci wa 4 millions di mooy sax laa bëgg a wax 4 millions nga teg loolu maanaam loo ciy leeral Sénégalais yi ak programme bi naka lay demee. 4 millions TTC la mooy 3 millions 600 la ñuy séddale mbër yi 4 400 mille doon frais d'organisation bu CNG mais luñ ci jublu rek mooy jël euh, jox tam làmb simple li moom parce que fête d'indépendance la ñuy wax fête de l'indépendance ñëpp dañ ci war a gis seen bopp. le 3 le 4 la ñuy défilé fii mais le trois la fanfare yi doon génn waaw donc nag tey séeréer yi fii ba Île du Saloum fii ba Kaolack Kaffrine ah ba fi Fallou demoon Fass euh, kii Fass Ndiaga Coy dañ leen ni woo ñoom ñëpp parce que le 3 dafa war a gàcceel la 4 le 3 bi daa war a gàcceel la 4 parce que ñoom dañu mus di taxaw naan ka làmb simple dañ ko euh, setaan làmb frappe la ñu gën a la ñu gën a jox cër muy Fallou Ndiaye dina ut lu mu am pour def ko si làmb frappe si mu ngi koy def man dinaa ko def fu mu nekk nii su ma sponsor bu may jox cent million ma dugal ko si lutte simple laa bëgg moom laa bëgg maa ngi koy ut donc ñoom nen wane ni que lutte frappe bi du leen ëppal dara le trois nen ñëw en masse respecter mesure barrière yi tëb chaise yi collé nen chaise yi ku si toog na nga bàyyi benn chaise keneen toog si morom sooy ñëw nga takk sa masque dañoo discipliné ñoom séeréer yi ñu siy woowaale joolaa yi parce que Sénégal loolu la cousinage à plaisanterie waaw nañ ñëw rek ñu kalante tooñante ànd wax bi moom di bëri Malick Thiandoum discours bu muy def temps yi rafetlu nañ ko waaw rafetlu nañ ko te xam nañ ni que loolu mooy wax ji lu positif la ñu ngi ko siy félicité waaw mais loolu moom mooy mooy yoon. kon daal le 3 bi noonu lay demee. le millions yi noonu lay demee. waaaaw noonu lay demee 3 millions 600 la ñuy séddale mbër yi may préciser buuma kenn ku ma joxoñ waaw <laughs> comme père nga dafa bëri problème <laughs> déclaré naa ko dem naa si kii bi wax ko si micro central def na changé nañ pub bi dina jaal seen TV 3 millions cent la mbëri di séddoo 400 mille mooy frais d'organisation bi. Euh, le 3 lay doon arène nationale ñëpp lañuy ñuy woo kuñ ko tuddee dafa mag Assane Diallo waaw promoteur immobilier nekk Kër masaar mais jóge pikin def fa lu ne gaañ nag keroog bi ñuy waxtaan nee na ma pikin boobu rek suñu yëgee ni tuddee nañ ma drapeau ñoom ñëpp dañuy jóg Kër masaar pareil boutique la yoroon pikin tey mu doon promoteur immobilier bu mag di jàppale nit yi di leen dimbale dimbale président Macky Sall te peut-être sax Macky du jot information bi nu mu waree le président Macky Sall am mouvement muy ñun ak yéen def si moyens yëpp si élection yi ñu jóge pour Macky falu mu pare ne jaan bu ndaw bi su bëggee doon jaan bu mag day làqatu liggéey làqatu di liggéey ñun ñu ne ko dañ lay génneewaat ndax suma xarit Modou ndax mooy wëllëreem su ma ko tuddee drapeau bi c'est à cos de Modou Lo la moo def lépp. moo def lépp. sa diggante ak Modou Lo. la. wax ji mënu si sori frère moom dafa jeex. loo dugg mu dugg ci gis naa sax ay vidéo mu ci pour pour le 3 bi muy woote. mais moo déggoo li ma la frère la ñu bokk ndey lu ma ne mu ne ci lu mu ne maa ngi ci. mais dinaa la laaj foofu daa ne ci lenn te kim ko seqal muy Ama Baldé xam nga ko tey ma gis ko ci journal bi mu ne set Modou juróom-ñaari Modou Lo ne na moo leen man bon Ama mbër la. jeune la dafa am fugg te dafa bëgg mais daa am fu mu jaaroon ak Modou. fu bëri neen parcelle. Ah. waaw xamante neen ama sama frère la sama gaañ la. Ah. sama xarit la moom. Ah, mais Modou frère la. comprendre nga si làmb la nekk amateur laa si. Hmm. mun naa wax sama xalaat. Modou pare na. Modou xam naa ni si entraînement rek la ne chaque jour. mais soo ma xamante nañu maanaam ça veut dire que kon Ama loolu muy wax daa daa ni mënta ne de set Modou Lo yim ne moo leen man non damaa ne moo tax nga man su ma waxee rek ñu jàll yàlla rek ko mun Modou sama frère la sama frère la Ama suma xarit la mais ci xamante bi rek ngay yem xamante nañ daal ñoom ñaar xamante ngi ñaan combat boobu yàlla yóbbu ñu si si jàmm que muy Ama que muy Modou ku si nekk nga xam ne ni que combat bi liggéey rek moo la siy may ndam. liggéey kese waaw Ama daa bëgg doon roi Modou bëgg téye roi am. Luc laa bëgg a gagné xaalis am ay sponsor ñu ñaanal ko waaw. am solo léegi fi may tëjee yow dina bokk ci sa journée muy euh, ki nga xam ne mooy Feugeula ak euh, armée mais balaa ñu si jeexal ku ne xam ne tamit boo tëggee le trois le 4 sa lamba am na muy Eumeu Sène ak Lac de Guiers loolu loo ciy wax ban message nga ciy sànni. waaw hmm, Lac de Guiers ah. Eumeu Sène ay champion lañ bëre woon nañ ñaari yoon benn bi match nul benn bi Eumeu am ndam kon Lac moo war a jëli revanche am tey su dëggalee boppam xeex mun na am ndam Eumeu Sène nag euh, su bëre bi gaayee te mu am ngemb man jàpp naa ni que moom bëre bëre ku si gën a pare daal di nga am ndam. léegi sa ñaari journée yi defe naa taxawal nga ñaari komba caat bu booy bambara yaa ko jox muut ja dolf bu lan euh, euh, fëgala lamsaar yaa ko jox armée bu benn baraak combat yooyu kañ la ak foo ci toll euh, muut ja caat régularisé naa ko CNG waaw am na date le 11 juillet la voilà le 11 juillet lay am incha allah arène nationale fëgg la ak armée ut dañu war a duggaat pour jëlaat date suñu duggaatee di jël date dinaa ko jëlal date samedi lay doon xam naa parce que ku am dimanche da ngay jëlaat beneen samedi incha allah de fii de du mois de juin ba ut dat bu ñu ci am dinañ ko si tëgg muy deux journées yoo xamante ne bëgg nañ waaye bëgg nañ leneen tam su munee nekk. kon daal fa soo koy yemale foofu. non non parce que am na maa ngi bëggoon Sa Thiès ak Yékini Junior Sa Thiès am na combat maa ngi bëgg ba tey Yékini Junior ku ma ko amal. Gris Bordeaux dégg naa ko muy laaj Gris Bordeaux gars yi ne Garga mu ne waaye moom Gris Bordeaux la préféré. moom Gris Bordeaux ak Garga la. day fekk kañ Gris Bordeaux ak Garga pare pour bëreex moom man moom pare naa pour tëgg combat am. yow boo ko ci bëgg a jox yow. bëgg naa ko ku si nangu xam nga tey ku ne doo ko sàqal lu muy euh, lu muy lu muy añee ku si nekk yaa choisir li nga bëgg. mais mais moom daa waxal li mu choisir moom na Gris la préféré. pare nga euh, ngir dox diggante ma Gris. parce que Gris Bordeaux tool na foo xam ne war na maye loxo te suy maye loxo xam naa instant bi mu may ko Yékini junior bokk na si mbër yu gën a placé parce que yàgg na fi bëri nax lag de Guiers bëri nax si Sisa Pouye bëri nax Tapha ñaari yoon ku bëreex Tapha Tine ñaari yoon bëreex euh, Lac de Guiers ba pare am lu mu fi def bëri fi tournant su laajtee sincèrement Gris jaadu na mu laaj ko en tant que amateur ak promoteur bu bëgg tëgg mais Gris Bordeaux tam am na droit choisir ko comme am na droit choisir leneen mais combat bu logique bu ma bëgg man su mënee nekk tam <laughs> waaw. presque kontaan naa si yow. non maa gën a kontaan doom ndey gën kontaan di leen wax rek ngeen sit yëpp ku si liggéey si combat bi rek sa droit lay doon nga ñëw. exploité ko. xam nga ne Equivox moom ak làmb ak Vox Arena ku ñëw ci làmb taxawal média ba pare tëgg làmb xam nga ne kooku doo am promoteur booy xàjjaka seen te man Babacar mi promoteur yi aw ma ci bu may ràññee ku ci tëgg làmb bu soobee yàlla la ma ci war a def dinaa ko ci def ba mu mat sëkk incha allah. xam nga buñ soog ak ñu booj. xalaatuma ko parce que man làmb laa fi nekkal presse. mais na làmb ji dox rek. Equivox image yu leer lañ yor te ay pro lañ gis naa leen tam ñuy jéem a liggéey si pay pay per view bu doy waar sax nga fay. da ngeen di gaaw nag ndax combat bii rek waroon nañ si mun a pay per view de. waaw non mais loolu yow boo woowee sec sax. waaw ah, waroon nañ si pay per view à l'extérieur. voilà donc donc lu ñuy. la pay view lee nga xam ne lépp dëgg la man maa la wax lii. waaw loolu nag da ngeen ko war a def parce que dafa war dañoo war a sàqami nag jot na fu mu nekk nii ñu sàqami si làmb mais lut simple bi nga trois mooy indépendance su deyu réew mi parce que fanfaar yi si la doon génn te le 3 jur le 4 nañ fexe ba le 3 gàcceel le 4 séeréer yi nañ ñëw fii la ñu war a wanee seen bopp buñ ko nangu fii ba Île du Saloum ba Kaffrine ba Kaolack woo nañ ñëpp may woo laay ñombar na indi sunguf bi ñu suy ko si stade bi na gaaw waaw suñu yaram dafa tàng instant bi may woo mbër yëpp na mbër yëpp ñëw waaw ñu ñëw leeral ndax am na yu fi xaw si fan yi si seen diggante dañ ñëw leeral ko incha allah. mais a xam lu ma bëgg nga tëjale ma daa am woy boo fi woyoon ci corona bi dama lay jox micro bi nga woyalaat ma woy boobu. waaw balaa loolu asan Assane Assane Diallo encore Assane le promoteur bi ñu tuddee làmb ji ak les amateurs Omar euh, doomu ndeyam ak ñoom Gora président ak Doudou Diagne Dieko ñoom ñëpp dama leen di wax ak amateur séeréer yi président. Euh, des pro waaw waaw ñoom ñëpp Saliou Diouf ñoom ñëpp laay woo waa ANELS waa Amalda ñëpp ñu ngi leen di woo si journée bi di leen wax ni que nañ ñëw jàpp si xam ne ku yéene lamb simple moo mooy tëgg séeréer yëpp ma leen di woo di woo joolaay di woo pël yi parce que ñoo aye Assane Diallo di leen wane lépp lu mu liggéey di leen dem remise drapeau foofu di leen eggali si moom voilà may gërëm As Diagne xawaa yow taalibi Serigne Touba bu wér la man mun naa ko wax As Diop sama doomu ndey maa ngi koy gërëm As Diop maa ngi koy gërëm di ko nuyu di nuyu suma yaay suma papa sumay xarit sam frère Timintan le nouveau artiste hmm? ñoom Eva Ina Sissoko Max Gueye ak Badara ñëpp sama staff voilà di di di di santaat yàlla bu baax di nuyuwaat waa Casamance di jox ñëpp rendez bu kenn tardé nañ teel a ñëw waaw. jox ma woy bi nga tëj. bi jamono. waaw waaye loolu rek loolu weesu na de ah corona bi na dem bi jamono na ku ne toog sa kër mooy li gën bi jamono moytu mbooloo raxas loxo yi mooy li gën ndax feebar bi di corona mi ngi xeexa àdduna bi di mi ngi xeexa àdduna te moni mën onon bandiraaɓe imoɗen daroɗen so tawi coronavirus jamono ɓe sinkilinti biwoɓimo ɓenna fankulunde fanku fanku duniya ɓe tenede dombaña konko ɓe tamala aliña fo aliña fo ndeysan président makisall sénégal kontan